waaw Demba Dione benn ndaw la bu dëkk Géejawaay juddoo Géejawaay màggee Géejawaay yaroo Géejawaay donc falaa dalee école falaa commencé falaa jànge def sama cycle élémentaire def foofu sama cycle moyen mais également def foofu sama cycle secondaire donc mun naa ni également falaa falaa amee bac falaa defee sama cursus yëpp donc je pense que daal je suis un pur produit donc de la banlieue je suis un banlieusard donc pur bi ma paree euh, foofu nag après euh, def naa benn euh, formation moo xamante ni c'était à l'issue d'un concours bu ma jàlloon donc bu ma paree aussi ma nekk technicien donc en maintenance industrielle bi ma paree également daal di liggéeyee benn entreprise bu mag bu ñuy wax Patisen donc def naa fa presque cinq ans bi ma génnee école rek daanaka fa laa dem donc liggéey foofu noonu ba ba 2020 daanaka presque cela fa jóge après daal di dem ville de Guédiawaye donc dafa liggéey en tant que chef de division éducation formation de la ville Guédiawaye nag mun naa ni li mu si dugal moom daanaka à la base passion la ndax euh, depuis bi ñuy nekk euh, tout tànk nekk xale gën a nekk xale sax dañ daan yëngatu ci wàllu association de développement donc boo gisee association ak politique daanaka euh, Euh, glissement la donc damay jógee ci association bi rek dal ci politique bi ndax activité association yi nga doon def daanaka moom ngay continuer di ko def ci politique bi ndax la politique ce n'est rien d'autre que la gestion de la cité donc en tant que ay jeunes on a l'obligation de participer au développement de notre localité ndax euh, comme ni koy ni ñu koy waxee souvent donc euh, alors ku nekk si ñun da nga am responsabilité da nga am obligation donc nga participer luy doxal sa sa société sa localité ndax comme ni ko euh, John Fitzgerald Kennedy di boroom xam-xam bu mag nekkoon président des États-Unis ñu ngi ko doon waxee mu ne bu laaj loolu sa dëkk di mun a defal mais yow laajal li nga war a mun a defal sa dëkk donc ci loolu noonu lañ yëngu lañ duggee ci wàllu politique bi pour apporter suñu contribution ci développement wu euh, Sénégal. waaw bon peut-être mën naa ne à la base bi ñuy dugg ci politique xëy na xaaruñu si woon opportunité. mais bu buñ ci opportunité euh, dalee wee mu dab ñu si dañ ko si dañ koy jël mais à la base peut-être mën nañ ne euh, li ñu jàpp comme peut-être mën nañ opportunité la mooy permettre nañu tey euh, ñu gën a élargir li nga xamante ne tey moom moo nekk suñu carnet d'adresse permettre nañu également ñu mën a également mun a am opportunité tey di faj jafe-jafe askan wi mais également di faj seeni seeni seeni saaf di faj seeni jàngoro di ko saafara mais également di euh, di mën a am ay possibilité également di euh, teewal Sénégal mais également di teewal suñu gox un peu partout donc je pense que loolu opportunité la. waaw bon effectivement parce que c'était euh, je pense que en deux donc on avait été désigné au niveau donc du département de Guédiawaye alors d'accompagner donc le président de la République dans le cadre de ses missions donc on avait vraiment l'insigne honneur de l'accompagner donc dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse donc en Argentine mais également on l'a accompagner également au niveau donc de Armélie c'était également dans le cadre donc de la francophonie du sommet, sommet francophonie donc je pense que c'était des, des occasions vraiment euh, auxquelles on avait eu l'opportunité donc euh, d'accompagner le président de la République euh, son excellence euh, Macky Sall oui effectivement donc je pense que c'était vraiment une très grande opportunité parce que aussi euh, c'est pas donné à n'importe qui donc de voyager avec le président de la République avec tous les honneurs donc euh, je pense que c'était très très très magnifique mais également bon en tant que ay jeune je pense que loolu ça nous a permis d'avoir des épaules assez larges donc assez larges pour pouvoir peut-être aspirer à d'autres responsabilités donc je pense que c'est ça c'est ça c'est ça le principe c'est ça euh, donc euh, l'objectif en tant qu'ay jeunes on a donc des aspirations à devenir donc de de de de, de grandes personnalités donc euh, ici au Sénégal maintenant il est bien donc qu'on nous prépare à cela qu'on puisse avoir des épaules assez larges pour endosser donc des des, des différentes responsabilités bon je pense que loolu tamit peut-être sama engagement aussi am na ci am na ci am na ci solo ndax aussi euh, xëy na ñu ngi yëngu ci wàllu politique bi mais tamit euh, ràññee nañu lool si suñu ndax suñu xarañ mais aussi ràññee nañu trop ndax suñu pas-pas mais aussi ràññee nañu trop ndax suñu engagement donc euh, xëy na loolu noonu ak leneen ak leneen ak leneen buñ ko ci amee wala mu mu dab ñu si donc day nekk loo xam ne rek vraiment donc lu ñu mérité la. Mhm. waaw bon je pense que naturellement ñun dañoo yàgg yëngut ci wàllu éducation parce que dañoo gëm ne comme ni ko Nelson Mandela doon waxee l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un monde donc euh, partant de ce principe là lépp lu ñuy def rek dañ koy def avec passion yàlla def aussi ñu am un maire de la ville un très grand visionnaire koo xamante ne ni véritablement il accorde une importance capitale au secteur de l'éducation donc euh, monsieur le maire Alioune Sall est un vrai militant de l'éducation depuis qu'il a été nommé maire de la ville de Guédiawaye en 2014 jusqu'à présent en tout cas le secteur de l'éducation donc dans le département de Guédiawaye a connu des es des essors importants mun naa ne rek en tant que euh, élu élu élu local depuis 2015 jusqu'à présent tey ndax dafa am ay lu ñuy wax ay intrants mais également dafa am lu dafa am loo xamante ni xëy na loolu dañ koy soxla pour véritablement améliorer les conditions d' enseignement apprentissage bi si njëkk mooy li nga xamante ni moom mooy le cadre fi ñuy jàngee mooy classe yi mooy table de banc yi mooy les conditions pédagogiques donc loolu noonu euh, maire de la ville de Guédiawaye Alioune Sall def si liggéey bu am solo bu ama am solo ndax bi mu njëkkee ñëw li mu njëkk a def mooy. dafa commandité ay étu ay ay ay études gars defal ko ay études ñu am li ñuy wax système d'information géographique loolu moo tax mu am la cartographie donc euh, dans le département di Guédiawaye en termes de l'éducation mu permettre ko mu xam département de Guédiawaye ñaata étudiants ñaata élèves ñoo fa nekk département de Guédiawaye ñaata salle de classe lañ am département de Guédiawaye ñaata table de banc lañ am ñu xool est-ce que ration élève table de banc est-ce que res am na respecté nañ ko ci département bi ñu gisoon ne bi muy ñëw en 2014 il y avait un fossé très grand c'est-à-dire euh, la capacité d'accueil était très très très faible très faible très faible même donc te capacité d'accueil bi si c'est faible peut-être dina dina impacter négativement ndax dinañ jël ay ay ay études ay élèves yoo xam ne waroon nañ leen a mën a bàyyi si système bi duñ leen fa bàyyi maanaam dootul amati redoubler dàq la day yomb ainsi de suite ainsi parce que la capacité fait défaut donc premier aspect bi mu njëkk a régler mooy. bi mu ñëwee mooy il a essayé d'augmenter la capacité d'accueil en quoi faisant en faisant su ko appelle la réhabilitation maanaam ñu yeesalaat li nga xam ne moom mooy yenn classe yi nga xam ne xëy na classe yu délabré la ñu woon kenn jàngeetu fa woon mu yeesalaat ko à travers un projet bu ñuy wax pro banlieue bon bi loolu weesoo également am na samit ay classe salle de classe yu bees tàq yoo xam ne daf ko construire construire ko yenn yi réfection la mais yenn yi construction toute neuve la mu yokk ci parking scolaire bi lu mat cinq salles de classe de 2015 à nos jours je que dans le département de Guédiawaye on a comptabilisé cent nouvelles salles de classe et ces cent nouvelles salles de classe là ont euh, positivement amélioré les conditions d'enseignement apprentissage dans le département de Guédiawaye parce que aussi en augmentant la capacité d'accueil on améliore les conditions euh, d'études et les conditions d'enseignement et apprentissage donc loolu noonu aussi dafa impacter positivement ci résultats yi loolu weesu également monsieur le maire aussi appuyer en terme matière en matériel pédagogique mais également en terme matériel didactique lu jëm ci wàllu ay fourniture scolaire lu jëm ci wàllu ay par exemple euh, li mel ne professeurs yi aussi dañ leen appuyer en terme de matériel didact didact euh, pédagogique xam nga donc aussi tamit ñuy def la promotion des sciences et des techniques tey euh, boo ñëwee ak Guédiawaye mun naa ne tey ñi nga xam te ne dañuy def les séries scientifiques et techniques am benn faveur bu particulière boo xam ne la ville leen koy defal pour inciter aux jeunes, inciter aux apprenants euh, d'adopter ou bien euh, d'aller faire des séries scientifiques et techniques. Donc euh, loolu tamit mu nekk aussi tamit lu am solo mais aussi mu leen accompagner en terme de par exemple lu mel ne ay fascule ay soo xoolee euh, trois ñu ngi ci troisième génération fascicule yi aujourd'hui il y a presque dans 23 disciplines on a on a conçu plus de des milliers de fascicules donc tout ça c'est pour améliorer sensiblement les conditions d'enseignement et apprentissage dans le département de Guédiawaye mais aussi en termes de subvention euh, des écoles en termes de subvention également des gouvernements scolaires donc la ville de Guédiawaye aussi voilà le maire à travers le maire de la ville Alioune Sall donc ñi siy def liggéey boo xam te ne liggéey bu am solo la xëy na daal donc je pense que loolu noonu euh, nekk na loo xam ne mbir mu am solo la te loolu aussi euh, impacté na positivement ci lu jëm ci wàllu jàng bi ak jàngale bi ci département de waaw laaj nga question bu am solo ndax soo xoolee euh, ay bés la jàll donc ñun en tant que ay ndaw ci parti bi dañoo amaloon benn euh, point de presse bu ñu organiser woon la ko sababoon nag mooy euh, dafa amoon ay responsable ci département di Guédiawaye yu génnoon daal di am ay propos yoo xam ne c'est des propos presque irrespectueux mais aussi des propos yoo xamante ne ni tey amul benn base bu solide donc ba tax na nag ñun en tant que ay ndaw ñu gis ne tey mérite bi monsieur le maire am liggéey bu am solo bi nga xamante ne nii mi ngi koy liggéey ci département de Guédiawaye mérite na leneen lu dul ay ay wala ñuy wax jël ay affaires yoo xamante ne dañ koy teg ci kawam loo xamante ne amul benn benn base bu solide. donc ñun nag bi ñu bi ñu defee constat boobu noonu en tant que ay ndaw ñu ne baax na ñu def réplique daal di leeral indi li nga xamante ne moom moo nekk la réalité leeral lépp ndax lépp dafa war a leer. donc ci leeral donc je pense que loolu moo tax nag ñu organiser point de presse daal di d' abord daal di jël témoin l' opinion nationale et internationale xamal ne gars yi ne lépp li nga xamante ne nii ñooñu orga defoon communiqué wax ci monsieur le maire Alioune Sall dañoo raté seen cible. waaw communiqué bi saa li ñu doon wax ci communiqué bi ñoom dañoo ne euh, le maire de la ville par ailleurs aussi coordinateur départemental. Euh, amatul li defatul la coordination ñoom en tant que ay militants authentiques sentiratuñ seen bopp ci doxalin bi nga xamante ni monsieur le maire doon na ko da koy doxalee. ci seen communiqué également ñu ne également ñu gis nañ tamit ñu ne dañoo jëm ci ay élections te doxalin bi monsieur le maire doxalee euh, mun na nekk loo xamante ni du baax bu ñu demee ci ay élections ci bi seen communiqué bi aussi ñu ne tamit euh, monsieur le maire ñoom ñi nga xam ne ñoo fi jiitu gis nañ ne monsieur le maire suy doxal. dafa am ay yeneen nit yu bees yoo xam ne ñoom lay invité si ay activité am ñoom lay àndal ñoom lay defandool ñoom lay bàyyi ndool dañoo sentir ne daal yëgatuñu seen bopp ci parti bi après nag ñoom ñu lancé message au président de la république daal di koy wax ne ko pour mu jël ay matukaay ci wàllu woowu noonu ñun ñu gis ne loolu yëpp lu ci bëri amul lu ci bëri vraiment euh, comme ni ko tubaab di waxee c'est de bon majeur lu ci ëpp ay contre vérité la xëy na peut-être lu ñu leen mën a nangul mooy ñoom ay militants yu yàgg lañ ci parti bi xëy na bokk na si ñuy taxawal parti bi ci commune bi ci département bi loolu duñ leen dañ leen dañ leen koy nangul waaye tey je pense que ñoom li ñuy kaas wala li ñuy wax lu ci bëri loo xamte loo xamante ne nii maanaam responsabilité bi Alioune Sall dañ mën nañ ko ko mën nañ ko ko mën nañ ko ko imputé ndax tey monsieur le maire Alioune Sall lépp lu ñu ko mën a def mooy dañ ko war a sant gërëm ko ndax yàlla may nañu aussi change ñun bien que ay ndaw lañ waaye amoon nañ sens bi parti bi di taxaw ñu bokk ko ñu fekke ko gis nañ aussi ne de 2009 à 2013 il y avait une léthargie au niveau de la l'APR dans le département de Guédiawaye donc il y avait personne qui osait prendre pleinement sa responsabilité qui osait également affirmer son leadership il a fallu la venue du maire Alioune Sall pour qu'on qu'on puisse sentir une nouvelle dynamique Quand il est venu, on a senti un nouveau leadership se dégager dans le département de Guédiawaye donc tey mun naa ne grâce à lui véritablement on se sent impliqué dans le département de Guédiawaye mais aussi dans l'APR ndax quand il venu ñëw na ak ay xalaat yu yees mais également ñëw na ak une volonté manifeste pour changer les choses donc mun naa ne il a participé à la promotion de beaucoup de jeunes mais également des adultes monsieur le maire Alioune Sall l'a fait mais aussi il a beaucoup fait énormément fait donc pour un meilleur épanouissement des militant au niveau du département de Guédiawaye donc ku mel noonu mën naa ne bu fekkee am nga ko da nga ko war a téye sa fukki loxo ak ñaar mais aussi da nga ko war a jàppale mais aussi da nga ko war a jox li nga xam te ni moom mooy cëram donc je pense que tey moo tax ma ne la ñoom dañoo xaw a lajj ci seen communiqué de presse boobu noonu ñi nga xam te ni def nañ ko gisuma gisuma gisuma euh, gisuma division boobu noonu gisuma séparation boobu noonu c'est vrai que am na si ñoo xam ne ils divise pour mieux régner c'est vrai que am na ñoo xam ne xëy na peut-être il aurait souhaité madame le ministre jaar nii monsieur le maire jaar nii donc ñoom xëy na peut-être si seen intérêt loolu moo tax ñu bëgg ñu bëgg ñu bëgg loolu mu am mais en réalité euh, cette division là n'existe pas APR au niveau de waaye on est un et indivisible on est indivisible au plan politique c'est monsieur le maire Alioune Sall qui est coordinateur départemental qui est le patron dans le département di Guédiawaye te loolu je pense que madame la ministre cër la boo xam ne nangul na ko monsieur le maire de la ville de Guédiawaye topp ci ginnaawam mais également au plan euh, hiérarchique au plan par exemple peut-être institutionnel tey madame le ministre mooy le mooy c'est le ministre de la République donc ministre à part président donc je pense que amaatul kenn ku ko ku ko ku ko ku ko féete kaw koo xam te ne da nga nekk supérieur hiérarchique am sur ce plan là madame le ministre le maire tamit xam na ne madame le moom elle est ministre de la république donc ku nekk tey xam nga la mooy sa cëru morom te ku nekk tey yaa ngi bàyyil sa morom cëram donc ñoom ñaar seen ànd dafay nekk intérêt wu département de Guédiawaye te depuis très longtemps je pense que ñoom euh, ñi ngi nekk di ko doxal ci doxal bu am solo ndax seen ay mission ñoom xam nañ ko mooy participer à la promotion des jeunes monsieur le maire li mu ci def kenn xamul nu mu doy madame la ministre également mi ngi ciy def ay efforts te tout ça c' est dans l' donc de de Guédiawaye donc c' ça. waaw effectivement comme ni nga ko waxee gis nañ ne weekend bi passé samedi beeg dimanche bi yëpp euh, dañoo nekk ci. Euh, procédure de renouvellement ñu gis ne euh, renouveler nañ euh, donc commune de Golfe Sud euh, je profite même de cette occasion aussi pour féliciter le camarade Omar Koundoul qui est promu coordinateur communal de la commune de Golfe mais également démb ci dimanche bi également ils sont procédés donc ils ont procédé donc à l'installation alors donc du coordinateur de la commune de de Sam Notaire et à la tête c'est Abou Diop qui est le nouveau coordinateur donc du départ de la commune de Sam Notaire bon man nag euh, effectivement comme ni nga ko waxee egsee guñu suñu commune mais euh, je suis euh, donc je suis dans cette dynamique là je suis très très très en phase et je suis très prêt comme toujours nu ma nekkee liggéey pour la commune de euh, Ndiarème Limamoulaye alors je suis prêt pour am ay aspirations pour jiite li nga xamante ni tey mooy la coordination au niveau donc de la commune de Ndiarème lay donc loolu continuité rek lay nekk parce que ñun xaar ñu pour ñu def ñu coordinateur pour ñu liggéey ndax euh, liggéey bi ñu nekk di ko liggéey mu nekk liggéey bu am solo si commune u Ndiarème Limamoulaye mais également di ko liggéey dans le département de Guédiawaye je pense que képp ko xam te ne responsable nga yaa ngi ciy teg sa bët yaa ngi koy gis te liggéey boobu incha allah dañ koy gën a continuer dañ koy gën a wéel xëy na bu ñu amaatee ay d'autres responsabilités lu mel ne euh, assurer la coordination au niveau donc euh, communal dafay gën a faciliter la tâche mais tout de même on continue à à à mener euh, ces différentes euh, activités pour euh, donc euh, l'intérêt du parti dans le département de Guédiawaye en général mais au niveau de la commune en particulier bon sama mot de la fin damay sant di gërëm d'abord Leral TV ci invitation bi nga xamante ni invité nañ ma ko mais également di sant di gërëm l'ensemble des téléspectateurs de Leral TV di rafetlu également liggéey bu am solo bi nga xam te ni moom ngeen nekk di ko liggéey en tant que ay jeunes ngeen nekk di def innovation de euh, de taille innovation majeure dans le monde audiovisuel donc dama leen ci encourager mais également di leen ci félicité mais aussi également di euh, remercier bu baax di sant aussi le maire de la ville de Guédiawaye monsieur Alioune Sall mais aussi euh, di sant bu baax son excellence Macky Sall le président de la république donc euh, du Sénégal di ñaaxaat ñëpp rek ñu gën a farluwaat gën a takkuwaat gën a taxaw ndax tamit euh, les défis sont énormes les défis sont majeurs et c'est c'est que dans l'unité qu'on peut véritablement donc ensemble relever ces défis là di leen jox rendez-vous donc très prochainement incha allah rabbi merci beaucoup